Thank you. waaw waaw bu defee bu baax. kon nag alal moomu waaye nag bu baax a baax a baax monsieur Aliou Diop gën koo xam ci monsieur Diop yaakaar naa ni jaxaay ñëpp xam nañ ko mu ngi yaral suñu ndaw ñi macha allah am yar am teggin wax dëgg yàlla te rëy lool nag ñoom kuul lañ dëkk. baa ngi ànd mbéy mi ngi fii la monsieur Diop ñu ngi lay nuyu la jox sa wàccuwaay El Hadj Pape Ndiaye mu Serigne Babacar Sy yow tubaarkàlla yow sama xarit nga Serigne Moustapha Diop maa ngi lay ziare Serigne Saliou Sow di ziare kilifa gu baax bii monsieur Diop yow itam ñu ngi lay ziare waaye bu mel ni Issa Camara mi may annoncé léegi président président Mahfouz. département bi yakar na ni ah moom mooy président des relais communautaires des relais départementaux président Mahfouz ñoo ngi lay jox sa waccu way yeen kenn mënu le fay dama ko a wax ko relais yeeg bàjjen yi kenn mënu le fay seen liggéey bi nga xamante ni moom la def ci bir rew mi di ko def ci commune yi di ko def ci département bi kenn mënu le fay lepp lu nit ñi wara a ta muy njariñ ñokoy yeglé gàddu seen tànk di dox di wër daanaka booy xool ba lii boo leen wàññee ñuy téeméer kenn ci am oto est-ce que xam nga ko ci am seen tànk rek la ñuy nam wala ñu jël tax wala ñu jël ci oto yi di wàcc yéen kon nag jërë ngeen jëf yàlla yàlla taxaw leen yàlla yàlla fay leen waaye nag waaye nag ku nekkal yàlla yàlla nekkal leen man kaana lillaahi kaana laahu lahu yàlla dina leen fay fay waaye nag li muy nag li nga xamante nii nag mooy monsieur le maire Assane Sy di ndaw di ndaw loo xamante ni tubaarkàlla macha allah at yi bariwul de waaye saa yu ko invité ci télé bi jaxay képpay bëri ndax li tax jaxay di bëri mooy plateau bi mu toog sax ñëpp dañ mu mujjee sopp ñëpp dañuy mujjee doon ay soppeem ndax xam-xam bi muy génne ci plateau bi monsieur le maire Assane Sy nag waaye ñun jaxay ñu bénéficié loolu waaye nañ ci sant yàlla nag waaye te ñaanal ko yàlla yàlla aar ko sàmm ko te taxawu ko. waaye waaye si jërëjëf waay yàlla yàlla yokk sa xam-xam te lafal la jot te bay la nga yeggali man saa yu ma leen gisee ci télé bi sama xol dafay féex damay am mbégte ndax ñun amuñu lu dul jaxase monsieur si jërëjëf di nuyu nag ah monsieur le maire suñu monsieur le maire El Hadj Malick Diané suñu monsieur le maire man ak Oustaz Mamor suñu monsieur le maire man ak ñeneen ñu bare bare bare bare bare bare ah ñu ngi lay nuyu di la la jox bu baax a baax a baax sa sa wàccuwaay jox ñu sas ma moor li nga xamante ne nii moom la li nga xamante ne nii moom la sëriñ wax léegi dinañ ci ñëw léegi laataa ñu laa jox kàddu gi waaye madame Mbaye sa femme d'état ñi nga xamante ne nii tubaarkàlla ñoo ñu nekkal ci suñu poste bii di ko taxawu. di ñu jàppale di jàppale jigéen ñi di jàppale ndaw ñi di jàppale mag ñi macha allah boo duggee ci poste bi accueil bi rek wax dëgg yàlla sa xol dafay sell ñu am yar am teggin macha allah yàlla yàlla lafal leen cat yàlla yàlla jàppale leen bu ko defee nag Serigne Moustapha Diop maa ngi lay ziare waaye Serigne Saliou Sow dañu bëggoon léegi Oustaz Mamour dafa ne dafa bëgg mu bégal. mbooloo bi bu ko defee bu ñu paree ñu amaat ci beneen présentation bu ñu tegaat bu ci tegaat ci nga xamante ni ñoo fi teew ndax mënuñu bëne su li loolu ñëpp rek benn benn yoon waaye bu ñu ko defee dogal dogal rek li ñuy wax naan li duuf ci nag xaju ci jib bi waaye mag ñi dañ ne nag xaju doomu ci waaye boo ko dogal dogal def xaj ci waaye sama yaay sama soppe sama xarit yaay ju baax dafa ñëw ci jotaay bi sànq tàbbi ci mu yaay jàmm yaay Aliou Ndiaye monsieur le maire yaay Youssou Ndiaye di soxna su baax su yaru su am tekki dëkk fii ci les seize yaakaar na ma dem masale xam nga li may wax yaay booy càmm ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay yow rek. bu bàjjen ñi nga ñëwul bu ñu jëloon suñu yow teg ko sa loxo rek teg nañ ko ñu loxo jigéen ñi ñëpp kii moo ci topp rek ñu teg ko ci ndax yëf yi nag léeg-léeg day demee noo xamante ne nii ñi nga xamante ne nii ñoo koy doxal ñu ko bëggee rek noonu lañ koy toppee incha allah bu ko defee sëñ Saliou kaddu gaa صل على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك بسم الله الرحمن الرحيم لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي لم يبلغ مثل مصطفى محمد سرا وجارا في البرايا صمد من لنا الاسلام والكفر مها وبنصيحته لكل سمها يقول بزائري والباطل من مفتاحه لله في كل زمن خدمته للغيوب الزبات والاستقامة وصفوا وخبت لبان كون مصطفى رئيسا لكل من قد فتلوا روزا قل خدماه فوق كل رقبة للغسار خروج لمن خباب محمد مثل لم يأتي فيما مدى وبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له زيادة له البراءة يوم ألس ولد سباء خير الورى مختار إن زمدي كفيت كل ذر يا الله بسر لا إله إلا الله قبلي مرادي كما أتواه بسر لا إله إلا الله يسر إلا الله زلت قصيدتي به سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما شافعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا أكيما فرتيت أنك باركت لي يا رب في وروفي وخيرها وجوز بالمحروم ملكتني بكونك الكريما ما قاد لي تقصير والتكريما آتيتني من قلب أنزا كلما متى من الدريك ما هدى ظلما الكمد تناجيا به كفاني الكمد وجار للأكرم أنفع الكرم وتلري بخير وبد للثرم أسأل كونة القصيدة خارقة لعادة المفيدة يا خيو يا خيو مسل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقى بنز الكلام من على خارج الخراف بما يفوق زن من مغراف للازم الخراف خلدي رباه يا من تفاوز الخراف والمباه ولي ويا رحمن يا رحيم يا القيوم يا مكرم يا نعجاك عبدك الخديم ذا سلام مسلما على مساوى guddi kooram ga ndekon guddeeg bëccëg la ñuy woor koor ga ma nga faat junni di junni malaayika yey jéggalul way wor ya fii gunaaka bis bu nu umee ñu daal di dem fa yàlla ne ko nga jéggal gaaya woor ngir yàlla bur ne leen jéggal naa ña woor ngir yàlla ba jéggalaale ñi umul ngir yàlla mooy bay faal yi leen di joxi ñam yu sell ak ndox yu tey di sàkku yoonu yàlla bur yàlla daal di signé yónneeri duwaan ne binaa ajjana tey jii ngir ramadaan ñu daal di tëj buntu jannatul nahim tëj buntu jahannama keroog ba yëpp jiim ku faatu woon keroog ci doomi aadama kenn dootu leen mbugal ci xeeti jaanama keroog kun fa yakun la yàllay dogal téeméeri junni góor la yàllay jéggal fii ñaari fan mu def ko ñaari téeméer fii ñetti fan mu def ñetti téeméer ñeneenti fan mu def ti témèr juroomi fan mu def juroomi témèr nilen lañ koy fulé ba weeru koor xëy ñeneenti maya ya dampe sen fay ku doge tandarma bu lew ci wéru koor ñu ful sarakaaya ñeneenti témèr bu laylatul ñewé ñu ful ko junni bi junni malakoot ak mulku ba bis bu nyepu, wari ñu jéggal ñepp ku bokku xéetu Mustafa ku ko sopp ku dul ku mbaate kuy bokkaale mbaatem njabar bu far yaale ku dul ku murtat mbaate kuy bokkaale mbaatem njabar bu far yaale mbaa kuy dogum mbokk limal kuy njaaloo mbaateb rambaaj namkat bu man di xaaloo ñii la borom aras ni barkeb ramadan mënu leen a may yér man ba nu tabbi jinaan yal na nu bur yàlla yërëm daaray ni te sutural ba nu am aaray ni ibtifal ak njëre njaayi cëri nga leen calan la jaayi lamp mam Seynabu Njaayi Seex Ibrahima aboori jaal ana soppey rasulilaay def leen ni nu màggal ko baayu Fatima Kalsum suma yeneen mooy noobal bi maa ngi koy ñëw foofu rek lu baax sëñ Cheikh Seck bëgg doon na ñu ngi baax daanaka yow da ngaa baax ne moom suñu maam baax bëgg jàngatu xët bi yëpp mhm. muy murit muy tijaan muy laayeen mhm. xamewul kenn Abdou Lahad Ndiaye kàddoom raw ko fi barab te ñun ñoo fi faral di yor programme yi ci yenn programme yi te moom mii ni ñu koy defee noonu la ko mëne kon moo tax léeg-léeg bu ñu ñëwatee ci jataay yi ñu leen di xàmmeele ñu leen di xam daf ci am solo te itam day jàng ñëpp xasida léegi bu ko defee ñaari minutes di nuyu bu baax di siyaare mboolem waa jotaay bi yëpp di siyaare baax Serigne Saliou di nga xam ne moom moo doon jëlee xasida yi léegi ndax moom daanaka bu ñu teewee teewalee rek lépp ko daal di ñoo bokk Serigne bi bokk xasida yi léegi muy siyaare yëpp mu rawatina suñu kilifa yi ak soxna yi ak seen yaay yi yëpp rek ko defee kon dañuy barkeeloo ay bëy yu gàtt rek ndax daa am ñu war jàll muy bàyyi Assane Sylla bi nga xam day taxawoon ci biir marché bi tey te boobu léegi ñu ngi may ngir ma teew fa wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin ala wa wa sallama taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina حافظة الأبيات بروح الله بروح الله ñi nga xamante ni tubarkalla macha allah yàlla daf leen nattoo ci gis waaye yaafu suñu tooguñu di xaar taxawuñ ci tali yi di yalwaan donte nag ña koy def sikkuñu leen ndax nag ñooñu ay waa yàlla leen tuddee te ñun ñii xam ay waa yàlla lañ waaye ñoom moom adduna yëpp waa yàlla yi lañ leen di nga leen di gis nii dañuy def transformation céréale di defar ay observer di defar lu ne di defar ay serviette lépp di ko jaay di ko jëmale ci askan wi di ci jariñu di ci dund. loolu nag exemple la ci képp koo xamante ni yàlla teg na la nattu nga ba ñu jël nattu boobu rek lay too ko ni jéemuma dara Baye Saliou yal na yàlla doon leen dëgëral seen taxawaay te yokk leen loolu ngeen di yëngu yal na ko yàlla yokk ci barke yonent bi ci sa Zaru Ramadan bii kon boo ñëwee fii ci jotaay bi ah dinañ la dalal mu mel ne nag. ki nga xamante ni mooy maa ngi ne Babayogo moom itam tàbbi na ci jotaay bi ki ne nag ku ko xam xam koog jaxaay waaye ku ko xam nag xam koog kër jaboot waaye ku ko xam xam koog Isa muy lakkalu Isa Isa di lakkala muy xarit Isa Isa di xaritam muy yaayu Isa Isa di doomam waaye kër njaboot yëpp rek tubarkalla di di di di di lépp rawatina jaxaay yëpp ñëpp xam ko moo moo moo mu sonn fi ba sonn jotee moom man ñi bis bu ne moo wax ko ajarat lay cabaa gi ne la toog bis bu ne ma wax leen fu ñu daje ñoom dama wax ne a xuus kon nag yéen bu ngeen ñëwee ci jotaay faaw nag ñu ñu ñu ñu ñu présenté leen dalal leen mi ngi day ànd ak sama jarbaat ah seet kumba yàlla yàlla lafal na ca ak abi macha allah mi ngi noonu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen jox ñi nga xamante ni moo di seen wàccuwaay bu ko defee nag ki ñu jëm. bu ñu ci jëmee jëm nañ kër Baye Bass ndax kan doomu day xaritam soppee bay amul dama kii ñu jëm ñu jëm ku ko xool sa xel laa war a sangoo waaye bi ñu jëm buñ fa demee nag dem nañ Tiwaawan kër Cheikh Sidi Hadj Malick bàyyi Serigne Babacar Sy Sidigueye Fatou dem mi ci Tiwaawan فاهتدينا اهتدينا وإذا الحق جاء ظهر المراء ربنا الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء وإذا قلت الهداية قلبا نسطت للعبادة الأخضر الرضا ورحمة الله كل للخلق قد وشئت من فجير وموتي إن زاهد الباري ورحمة الله كل للخلق كسب ينند فلي من غدير ومطيع غايد الله جمالنا أزكى صلاة وتسليم على قمر النوره ليل ما نلنا من أنوار أزكى تسليم على قبر نبي النورية ليل ما ملنا من نور ممرنا والآل وشهدي أقمار خوفاتي ومن سبيلهم سلكوا ربي من أبرار جرجم أمنا صلو بكرة فينك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الكون فنظم وجعل البيت وحرم وبعث الرسول وعظمه وخلق الإنسان وكرمه وقال في محكم تنزيله ولقد كرمنا بني آدم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yi maa ngi leen di nuyu. di leen ziyaara. di leen ndokkeel. di leen baalu xaq te di leen ko baal. waaye di ñaan Mawlana tabaraka wa taala. xiif gi ñuy xiif yàlla mu nekk xiifu neen. mar gii ñuy mar yalla bum nek maru neen jar nay ñaan ndax yalla mo wax ci lamb ñu yonent bi ne رب صائم وليس له من صيامه الا الجوع والعطس يونت بي نينا بارينا كو وور با نغور تي امول تي كور دا لودول خيف اك مار كيب لا تي ام ني نيو يونت بي لو تخ مو ني ندخ دغلو تي يون نيكول tudd jàmbur te neexu ko alaaj Seydou xam nga luy jëw ah jëw nga luy jëw jëw mooy wax si nit ki lu ko neexul même bu dee dëgg la même bu dee dëgg la ma amal Seydou 5000 francs ah. toog ci tànt bi yuusu di way ma yëkkati 5000 jox ko eh ñibbi fekk Seydou fekkewu ko Pape Ndiaye ñibbi dajeeg Seydou Seydou ne ko man daal am na ci loo xam ne sax yoroon naa ko waaye maa ngi xaar am na ku ma war a fay bor ndax oustaz yoroloon na ma junni am naa yaakaar ne dina ma fay bu ma fayee dinaa la ci dinaa la ci may 2500 Pape ne ko ah oustaz mais ca tant bay maye jëw na ma ndax loolu ku ko wax neex na ma man pour Seydou dégg ko waaw jëw du yàq deru nit de mooy wax ci ginnaaw nit ki lu ko neexul ah xawlul xaq min wara innaasi maa yukrahu bii jëw mooy donte li ngay wax dëgg la waaye nga wax ko ci ginnaaw nit ki te bu ko yëgoon mu metti ko loolu jëw la yeneen ti bi ne bari na ku woor ba ngoon amul ca koor ga lu dul xiif ak mar te ay jamono sax metti woon na waaye léegi la gën a yomb xam nga lu tax mu yomb mën ngaa toog sa biir néeg yow doom nga tëju yor sa téléphone di jëw da ngay xool esthétique gis ngeen njaay mu esthétique sol nu bula nga capturé esthétique bi envoyé ko Pape Ndiaye dafa nga njaay yërim bii yere bi da mel dama ko xamé ci ci ci ci bayat faaw yere bi bayat mom la sol ban ki démb xawma bayat ko mom xawma ngañ ko mom waye yere bi mom xamé na ko ci bayat te moo ne nit bi kon jarna di muslu kon xif gi yalla bu mu nekk xiifu neen Serigne Touba newon na jamono ngi ñew bakkar dina yombu lol luñuy sango pour jéggalu yalla yombu lol waaye day mel ne ndox mi ñu war a sangoo pour yàlla baal ñu day mel ne ndox mi dafa am safara day mel ne ñun dañoo seexlu ndox moom xoola astaghfirullah ni mu yombee jullit dina xëy suba ba ngoon te ko wax benn yoon da nga ne jullit nga te yàlla Muhammad mi gën ñëpp nga xam ne yàlla nee na ko looy bëgg def baal la noo ko defee baal naa la sa bàkkaar yi jàll yi nga yi nga tayul yi bëgg a ñëw yi nga tayeg yi nga tayul baal naa la yonent bi nee na xalaatumaa tëdd ci lal te jéggaluma yàlla donte soixante dix fois la te yàllaa ko de baal naa la ci waaye léegi nga ñëw nag yàlla waxu la ne la baal naa la yàlla joxu la leer nga àttana xëy suba ba ngoon yor sa oto di dawal fu ne nga dugg fa lu ne nga génn ca di grand place bu ne nga toog fa guddi jot waaw même bu dee téeméer yoon la ne ko yàlla baal ma kon xiif gi yàlla bu mu nekk xiifu neen waaye ñuy wàcc ci jotaay bi di nuyu imam muy imam Diop imam ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla ñaan borom bi subhanahu wa taala li yàlla defaloon Cheikh Alhaaji Omarul Fuutiyu yàlla yàlla defal la ko Cheikh Seck xam nga lu yàlla defaloon Cheikh Alhaaji Omarul Fuutiyu bu kàbbar yi di julli lu ko féete ginnaaw du lakk Cheikh Hadji Omarul Fouti bu masaan a kàbbar di julli lu ko féete ginnaaw du lakk bis jot na mu toog ak ay njabootam di waxtaan ak ñoom di leen nettali li leen nag ci xéewal yi ko suñu borom defal ba tudd loolu am mag mu toog ci ginnaawam daal di koy weddi ci xelam mag mu toog ci ginnaawam weddi ko ci xelam bis jot mag moomu ko weddi ci xelam soxnaam am ay gam yu ko bet gan yi daal di ñëw ci kër gi ñewale ak xif bi ñu egsee soxna ci xol leen gis ne ñi dañu xif soxna ci wo doom ji jox ko xaaliss ne ko demal jëndal ma ndawal bu ñewé gaaw ma baxalal leen ko suppal leen ko ndax ñu am lu ñu lekk. gone gi dem jënd yap xar indi ko jox ko yaay bi mu ko joxé yaay ji taal matam daal di ubbi ci nam sotti ci ndox jël ndawal li raxas ko sotti ko ci daal di ub cin bi trois heures quatre heures cinq heures yaa ji ubbi cin li ndox maa ngi bax waaye ndawal ji mi ngi fi mu nekkoon gan yaa nga toog rek minute ak minute yaa ji ñëw xool ubbi cin li gis ndawal la mel na mu meloon yaa ji xeeb matt yi nga xam ne def na ñu yónni fa laa dem yaay ji ne ko changé woo ko mu ne ko changé woo ko yaay ji ne ko nañu ànd ñu dem foofu ñu xool ko mu daal di téye ndawal li ndawal laa ngi seddu guy tam ndox maa nga doon bax ndawal laa ngi seddu guy yaay ji téye ndawal li am ak goos bi ñoom ñaar ñu ànd bi ñu demee ba agsi ci waa yi ki leen jaay ndawal li maire bi ne ko ndax yaa jaay sama doom ndawal mu ne ko maa ko jaay daane lu guñu am ku ñëw ne ko tey ndawal gi ma jaay macha allahu taala yàpp bi gaaw naa ñor amul yax nooy na macha allah tey daal ndawal li ma jaay xar ma xaw ma foo ko jëndee waaye kooko na lay jaay xar mu ne ko moo ndawal lii ngay kaas kii di ma tagg nii ci ndawal lool laa jaay yaay ji am ak doom ji ne doom ji wax ma foo jaarale ndawal xale bi ne ko nañu dem man daal nii laa jaar nii laa jaar nii laa jaar bi ma ñëwee ba fii fekk naa benn paa muy muy julli tàkkusaan muy julli tisbaar paa bi bi muy julli ma bëgg a jaar ci kanamam paa bi def ma nii loxo ma daal di jaar ci ginnaawam jaar nii jaar nii ñëw ci kër gi jox la ndawal li yaay billahi ndawal li changé wu ko góor ga jóge ci El Hadj Oumar Foutiyou ne tënk fekk yaa ji doom ji di expliqué yaa ji loolu mu ne ko doom wax nga dëgg ci El Hadj Oumar Foutiyou waxoon na buy julli lépp lu jaar ci ginnaawam du lakk loola waral ndawal li boo ko doon teg ci ci liif téeméeri at it noonu mu mel noon lay imaam yàlla na yàlla defal la lool ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñoo ngi bu baax di ziyaara suñu baay bii ñu dendal muy exemplaire Seck wax na ko léegi ci exemplaire nii mu mel yàlla daa muur ay bëtam mu judduwaale ko waaye njàccaar yi moom moo leen di dimbali man mii conférence bi ma koy defal lim may fay ci xaalis néew na ko conférence buñ may fayee lu toll noonu mu jiite société gouvernement Sénégal reconnaître ko mu jiite ay nit ñu bari nekk ci ginnaaw waaye muy borom teraanga ba pare yar ay njabootam ci diine ndax ay doomu maa leen di jàngal mu nekk jëmm ji yàlla baax Baye Salim ñu ngi lay nuyu di la ñoo ngi ziar bu baax ngañ Demba Ndiaye ñaan yàlla mu dëgëral ko muy suñu soppe di suñu xarit di nit ko yàlla baax waaye maa ngi nuyu bu baax monsieur le maire donte miinu ma ko si ñu ngi lay ziar ñaan yàlla mu dëgëral la biiram ak biti ñoo ngi nuyu bu baax a baax macha allahu taala sama meeru bopp mooy Asmalik Diané waaw sekk bëgg na ciy dugal boppam waaye man sama meeru bopp la waaw Diané mooy meeru jaxaay waaye man kii mooy sama meer nit ku baax Seck barki démb xam nga nu mu def nu mu defati sax nam daan def ñëpp xam nañ ne koor gi li ci des mu jeex bareetul waaye pañe ndogu bu ma indil pañe ba loo xalaat ma nga loo xalaat ma nga te pañe daaw ba maa ngi lay waatal ci yàlla daanaka téye naa ko lu mat weer pañe ba tëb a jeex te te euh, alaaj Seydou man damay noos. waaw Seydou man damay noos. dama ne la pañe bi waaw. après ñu dem xool ko. waaw moom tey doy na waar indil na ma pañe boo xamante ni maari dim si yal na yàlla yokk sa teraanga ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi nuy sang boobu nga dendal ñu ne moo jiite xaw ma lan alaaji euh, Mahfouz ñu ngi lay ziar. ñaan yàlla mu dëgëral la biir ak biti ci dara daraja yeneen ci. nate ndax TV. ah Ndete TV. Ndete TV di leen a baax ñoom ñooy premier rajo ah, rajo bi nga xam ne moom mooy départ nekk fii ci département Kër Massar waaye ma xam seen njiit bu baax a baax ki fi taxawoon léegi mu nekk jëmm ji yàlla baaxam ñoom bi ñu yor studio boobu Kër ma Massar ku fi dëkk boo bëggee enregistré boo ñëwul ci ñoom di nga daw ay kilomètres yu bari génn da génn Kër Massar gi yëpp. ñu nekk ay ndaw waaye di ay ndaw yàlla baaxal maa ngi nuy soxna si nga xam ne moo jiite saas femme yi soxna si ñu ngi lay ziyaara baax ñaan yàlla mu dëgëral la madame Coulibaly ñu ngi lay ziyaara baax ah ñu ngi nuyu suñu yaay ki ne bakay ko ñaanal ko jàmm ak sutura tawfiix suñu yaay nday ca ba yal yàlla defal leen jàmm ñoo ngi nuyu suñu yaay yëpp xam naa bu ñu toppee nuyoo bi duñu fi jógee alaaji Bayar Fall maa ngi koy ziyaara kon su ñu ngi lay ziyaara ñaan yàlla mu dëgëral la mu nekk koo xam ne ñun bi ñuy nekk ndaw nekk ca daara ja dëkk géejawaay bu ñu mësaan a yolleeku mat sa am bu ne tey war a football damay yolleeku daw moom mii laa daan seetaani bu mat sa ya jeexee ma ma téye ay dàllam waaw ma téye godaas ya su ma demee koñ ba nag bës laay am ndax dama daan tey dàll bayaat maa ko téyewoon waaye gis nga yàlla gis nga yàlla ay mbiram na ma nekkee woon fan sam léegi moom mooy sama fan waaw yàllaa ngi noonu waaw yàlla yàllaa ngi yàllaa ngi noonu waaw su ma mësaan a ñëw koñ ba damay bandi bandi lu kat di xaw yëkkati mbagg naan tey moom dàll bayaat maa ko téyewoon di ci bànneexu ah tey moom mooy bànneexu ci oustaz Mame Mor laa doon déglu muy conférence loolu nag yàlla na sax te yàgg ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alaaji Pape Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara maa ngi nuyu bu baax a baax ama Tidiane Diallo bu nekk nit ko yàlla baax nekk nit koo xam ne jaxaay bari na tey kuñ fi ràññee ñëpp xam la moom moo indi possibilité loolu ndax jaxaay la gën a defar ama Tidiane yal na yàlla sagal la biir yàlla sagal la biti xam naa tabaarakallaa maa ngi nuyu ñii doon ñii di tagg yonent bi alaaji Seydou si ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ñaan yàlla mu dëgëral la yàlla taxaw la bii conférence tey jii démb la waroon a doon loolu moo waral ñu def ko tey waaye yal na yàlla defal ñu jàmm biir yàlla defal ñu jàmm biti alaaji Seydou su juumul Issa daf mën a ñu waxtaan ci dëkkandoo ak dëkkaale ah n'est-ce pas loolu la alaaji Seydou maa ngi nuyu bu baax Seck ndaanaan bëgg Bamba Seck maa ngi lay ziyaara yow sax laa waroon a njëkki nit ku baax nit ku baax nga nit ku bari valeur gis nga bari na ku tiim nit di ko waxal baax yaa ko gën bari na ku tiim nit di ko waxal mbaax yaa ko gën xam nga tax nga gën ko. Ah. même bu dee ki nga tiim ku baax moom la mu am la nga am ci mbaax waxalu la ko yow yaa nëbb sa bos di ko waxal boppam kon yaa ko gën. alaaji sekk di nit ku yàlla baaxal sekk day jël juróom valoriser juróom bi ba nga yaakaar ko juróom yal na yàlla defal la jàmm yàlla taxawula biir yàlla taxawula biti Seydou dañoo ne dëkkandoo li tax du fi xaj mooy juróom ñetti dëkkandoo moo am Seydou huit dëkkandoo moo am huit waaw man mii thème bii su ma koy waxtaanee ci télévision huit émission laa koy def su ma koy waxtaan ci télévision huit émission laa koy def juróom-ñett waaw léegi li nga xam ne huit émission lañ koy def émission bu nekk war a diire une heure de temps buñ la bëggee ne la waxtaanee loolu ci une heure de temps te bëggal leen ci yeneen ci bi noo koy def waaye su ma la waxee dëkkandoo yi am sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu baax di la ziar su ma la waxee dëkkandoo yi am di nga xam ne di nga xam ne loolu xajul ci conférence waaye dina am loo yóbbaale ndax bari na tey ku toog boo ko demoon woon ñaata dëkkandoo am boo moytuwul mu wax la ñett wala mu ne la ñeent. bari ku toog ci tànk bi boo demoon déy ko ne ko ñaata dëkkandoo moo am tam mu wax la ñett wala ñeent tam mu ne la ki nga ki nga ki nga bokkal deret te boo ko dëkk ki nga bokkal diine te ko dëkk ki nga bokkulul diine te ngeen bokk ci quatrième dëkkandoo bi mooy rabu àll yi yàlla booleel Moodu xar mi nga yar xar bi néew la jënd ma yaa dem jëndi kenn ku nekk ci ñun xar bi ngay yar wala ginaar gi ngay yar wala pison alaaji Yusu Njaay maa ngi lay nuyu maa lay ziyaara baax a baax kenn ku nekk ci ñun xar bi ngay yar yow yaa dem fekk ko ca daral ba nga dem jëndi ko ñëw indi ko ci biir kër gi waa bi nga ko jëndee la nekk sa dikkandoo am na li la war sa diggante ak moom mooy ñeenteel juróomeel dëkkandoo ba xam nga kan la ki nga dëkkal da ngeen bokk dee juróom benneel bi ki nga dëkkal da ngeen bokk diine te bokku leen deret juróom ñaareel bi ki nga dëkkal bokku leen diine waaye yéen bokku dëkk bokku leen diine waaye yéen bokku dëkk waa juróom-ñetteel bi nag mooy ki nga xamante ni yéen a bokk deret te dëkku te dëkku leen yéen a bokk deret te dëkku leen même bu dee fii a nekk yow nga nekk Tamba ay dëkkandoo ngeen xam nga tax biir ba sa biir ba biir ba nga tëddoon biir ba nga tëddoon yàllaa ne eh biir bi ngeen Demba Njaay tëddoon ngeen Demba bu ci génnee Roqaya Njaay fii tëdd waa démb yéen a bokkoon fenn fu ngeen dëkkoon tey ngeen ñëw yàlla nee na am na li leen liyee mooy la meen ak géño da ngeen war a sàmmul waaw lii xam nga ci koo nga léegi ne nuñ koy def dañ koy waaw kon ñu jéem koo dogal dogal alaaji Isa naa la premier dëkkandoo bi mooy yàlla yàlla nee na man maa leen gën a jege seen boobu xol yi waa kenn ku nekk ci ñun dangaa fekk teere maanaam way jur bi fekk teere mu waxaale ko ñu jaay ko ko mu jënd ko jekki ba mu yàgg mu woo ay móolóor ñu tàmbalee móol mu tabax kër ba kër gi àgg mu takk soxna def ci yàlla may ko njaboot njaboot gi tàmbalee dëgër wayjur boobu boo xëyee ko nuyu woo ko mu mere la badalaka laaw xayran yal na yàlla yombalal la xaalis yi ah loolu la ko jëm ca xam man maa ngi orsiisi nee na place jigéen ci diine moo nekkoon jëm bi Issa da gaaw wax kon ñu dévier ko waaw waxtaan na neex ko loolu ah. waaw déet mais Issa Taware ñoom. لا بالقلب حائرة لم يحزيك الأرض لا تكيني يا إله هذه والآن استقلمي مصطفى مؤتار خلقي تفلمي حديدة سكنت بالقلب خائلة لم يعفيك الله في دار لا تدري يا إله مختار في المدينة مصطفى خديجة سكنت واو بخلق خوائرة واو حمد الله حمد الله محمد بصيرا وصلي يا إله

للمسلمين والفضل عند رسول الله خير لوحتك كنت صب سير البابا لوحتك للمشهورين له والفضل عنده رسول الله سليمان رباني رمى الورى بين فالورى والمشرعين لو يلا جل بولا لجي خيتو ينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام bu dee murit nga yàlla boole laa gën di sëriñ Seexul Xadim bu dee Tiijaan nga yàlla boole laa gën di sëriñ Alaaji Maalik wala Baay Ñas bu dee Xaadir nga yàlla boole laa gën di sëriñ Seex Saadu Abi bu dee laayeen nga yàlla boole laa gën di sëriñ Seydina Limaamu Laay wala kon yow loo war a def lu dul sant yàlla kon boo xëyee balaa ngaa def dara nuyul borom bi subhaanahu wa taala yàlla noo koy nuyoo doo ko ne asalaamu aleykum ñaari raakaa nga koy julli mooy nuyoo gi mooy nuyoo gi xam nga lu tax fi la yàlla jaare la ba ngay nelaw ba ngay nelaw fi la yàlla jaar la su ma ci jàllee léegi di nga xam ne boo xëyee da ngaa war a nuyu yàlla yàlla nee na sama dara taxaw lépp di dox kul yawmin huwa fi sha'ni yàlla neena sama dara taxaw ni may waxe ak yow alaaji Seydou amna ku ñuy génnee kasso mo wara dem ci kër ni may waxe ak yow amna amna ku ñu ku te diko duggal ci kasso ni may waxe ak yow amna ko xamne borom teranga la woon mu jëm ci toroxtaani ni may waxe ak yow amna na dëkk buy taw te sooy te gul fu mu ni may waxe ak yow amna ñuy doore a am na ñu nekk ci guddi am na ñoo xam ne ñu ngi toll ci ndékki chaque instant chaque minute chaque heure yàlla dox dara taxaw. am na ku judd am na ku ñu rob. wallaahi dara am taxaw waaw léegi yow nga tëdd guddi. waaw waaw suuf suuf yàlla ak noonu. waaw yàlla Mourou maa ngi lay ziar. yàlla kay rek sama soppe. yàlla bu yàlla bu eh. yàlla moo ay mbiram. yàlla moo di ko joxe. ndeysaan te loolu war na koo mën a am ndax jaamu ko ci yàlla la. war na koo mën a am ndax jaamu ko ci yàlla la. man moo dàq oto. te su ma maa ko dàqale mbokk. am naa yaakaar ne maa ko gën a cher am naa ci yaakaar. wallaay oom ak i yàlla def loolu ci moom ma wax. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan yàlla moo def loolu ci moom ma wax. wallaay ndeysaan muy ko yàlla baaxam. saa yàlla yàlla guddal sa fan. yàlla yokk la ba nga yëg li wax dëgg la. waaw li sekk wax dëgg la. am na koo xam ne boo bokkee moom da nga koo war a sagoo. nit am koo xam ne du dara mu yëkkati ko teg ko ca kaw ba ñëpp di ko ziyaare ko raay. waaw mi am lii dara na nga téye ko wàññiwul dara mu lay ziyaara bu baax a baax. yàlla yàlla doole sa jàmm. ñoo ngi nuyu bu baax baax seen watara ñu siyaara ko muy ko yàlla baax tàllal loxo loxo tàllee nga tàllal tànk tànk tàllee nga tàllal cër yëpp cër yëpp tàllee Thank you. ñoo ngi kilifa gii di dooraat si muy président Birame Niang ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko ñaan yàlla mu dëgëral ko ñaan yàlla mu yokk teraanga yàlla yokk sutura alaaji Moodu mm-hmm. dinaay wax gars yi ne leen mm-hmm. ki nga xam ne heure bu mosee mosal la mm-hmm. dee leen ko ñaanal yàlla li muy mos di yokk ndax yow li ngay mos di yokk Ah. ki nga xam ne heure bu mosee mosam deel ko mhm. bu yokkee li ngay mos du yokk mhm. biraama yow loo mos ñun xeeb nañu ko mhm. waaw te moom bu mosee day mosal ñu bari waaw waaw waaw ñu bari lay mosal waaw man Seck li may mosal laa xam Seck moom du ma mosaloon ah? du ma mosaloon ah? ndax man siqumaa kenn ay fukki junneeg ay yooyu dama koy maye maanaam man yooyu dama koy maye tant que bu ma fi toogee léegi ñaata laa maye néeg ay yooyu noonu non non ay biraama yi ku ma ci jox fukki junni ma delloo la ndax dama koy maye ñoom nag ndokk ba ñu xamee loolu ba buñ may jox ay 200 jëm kaw moom lañ may jox yal na yàlla yokk teraanga ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam alaaji Moodu sa borom subhanahu wa taala yàlla ni la boo xëyee balaa ngaa def dara nuyoo ma ñaari rakka xoolal nga ne yàlla biraama ñaar daf maa jox heure daf maa jox heure dañoo war a daje dañoo am rendez-vous sept heures la ñu am rendez-vous dañoo daje su ma fi nekkee di sangoo ko yàpp ko julli damay tardé xoolal tax nuy woo yàlla ñaari raaka xoolal nga dem bureau Birama Niang Birama Niang joxoon na heure sept heures yàlla nee na xoolal maa yeexal Birama Niang fu mu jaar gars yi arrêté ko di waxtaan ak moom dangaa baax dangaa nangam ba onze heures yaa ngi toog ci siis ba di xaar te amaana boo ma nuy woon ñaari raaka dinaa fexe ba Birama Niang heure ba ngeen joxante man yàlla ma fexe ba heure boobu man kon boo xëyee nga nuyu sa dëkkandoo bu njëkk mooy sa borom subhanahu wa taala ñaari raaka wax naa la ñaareelu dëkkandoo bi mu njëkkanteeg waxtu bi nee naa la mooy malaayka yi la yàlla boole alaaji moodu kenn ku nekk ci ñun heure boo tëddee trois heures du matin yàlla dina yemal ñaari malaaka ci yow chaque jour waaw trois heures du matin alaaji nga ngay nelaw yàlla yemal ñaari malaaka ci yow moodu xam nga li ñuy def dañu lay defoon li nga mënulul sa bopp yaay booy sa yaram bu tilimee nooy def doon njàmpee saabu sang sa bopp tilim ba dañ say nopp bu tilimee nooy def di nga wut kotoo tiis dindi ko say bëj bu tilimee soxna Ayta soccu ngay jël nga socc say dàll bu tilimee nga raxas ko say yére bu tilimee nga fóot ko moo ne boo génnoon fii di dox war a jëm 65 ba balaa nga àgg yàlla dina ëf ngelaw yi ngelaw yi yëkkati poussière bi poussière bi di dugg sa bët dugg fees si dell dell dell dell sa bët te moo ne bi ngay dox poussière bii ñëw néewoo naa gëmm déedéet néewoo naa gëmm ndax boo gëmmee oto fiir la wala nga joggi loo bugg te jot dox gi ngay dox ubbi say bët poussière bi dugg sa bët boo ko jotee yàlla danaan malaaka yi dem leen ngeen fekkal ma biraama ñaar këram mu tëdd di nelaw trois heures du matin yàlla ne leen bu leen ko yee ndax damaa fonk doomu aadama lu ma bind doomu aadama ma ci gën a malaaka yi dugg kër néegu biraama fekk ko muy nelaw xoolal tëj na buntu këram tëj buntu néegam wàccee mu si keeram ak ab mbàjjam oto bee bu ci boroom nekkoon di accéléré léegi accélération bi dérangé ñu bruit bi dérangé ñu malaaka moo ëpp niir avion malaaka moo gën a rëy avion yàlla wax malaaka yi soppaliku leen ngeen nekk ngelaw ñu nekk ngelaw dugg sa biir néeg te tëj nga néeg bi ñu yëkkati sa musikeer fekk la nga dëpp yàlla nga leen bu leen ko dippandi xaar leen ko ba mu dippandil boppam malaaka yi toog ba nga dippandi ko sa bopp yàlla nga xam nga lu ma poussière bii Birama ñaa yendoo nooyi poussière bi di dugg ci bëtam laa bëgg ngeen dindil ko ko ndax bu yaramam tilimee mën na koo bomb waaye fa poussière bay nekk mun ta yëkkati xefam jël bëtam di ko loxoom di ko dugal ci biir bëtam di loxati poussière bi di ko génne Birama yaa ngi tëdd nelaw trois heures du matin malaaka yi tiim la yëkkati sa bët génne la salte bi yëpp salte bi yëpp génn ñu bëgg koo yóbbu yàlla ne leen bu leen ko yóbbu bu ngeen ko yóbbuwoo Birama Niang bu yeewoo du xam ne yónni naa ay malaaka kër trois heures du matin malaaka yi ne ko salte bii ni ñuy def yàlla ne leen tegal leen ko fii ci buntu bëti bu yeewoo dina xam ne am na lu ko seeti woon ndax ba muy tëdd bàyyiwu ko fa Birama Niang nga yeewu taxaw xool seetu gis fii ay salte mu tudd laas yàlla ne la gis nga laas yooyu nga ne ko ah mu ne na su ma ko bàyyi woon sa sa biir bët pendant une semaine yu ko malaaka yi boo génnee daal di seen maxa comme mënoo kaa génneel sa bopp ci sama yërmaande man yàlla ma bàyyi la ba ngay nelaw ma yebal ay malaaka ñu génneel la ko yàlla ne la génnee nga mënul waaye xanaa biraama dem sangu def nii affaire bi dañ xanaa mën nga ko ne la jullil ma ñaar raaka ko def moo ko mbokk yi affaire bi du caa du ay caaxaan affaire bi du ay caaxaan de te sa borom su ma ko bàyyi woon sa biir ba pendant une semaine dootoo gis man meebal ay malaayka ñu dindil la ko ñooñu sóoraale leen ba ci yow jigéen yow mi sango ba pare dugg sa biir néeg tëj sa buntu néeg génn sa salle de bain wala diwu amoo droit simmeeku ni la sa yaay juree woon di diw bul ne sëñ nekku fi bul ne samay doom nekkuñu fi bul ne tëj naa néeg bi naa si meeku déedéet am na ay malaayka yi la yàlla booleel xormaal leen jëlal sa sarbet nga tunjoo ko sa loxo nga diw di jël sa loxo di ko dawale sa yaram waaye nu ma neex rek nu ma neex rek Moodu sa maam Serigne Babacar si nee weñ yii di naaw weñ yii di naaw sa maam Serigne Babacar nee na bu ñu taxawee bu ñu taxawee ñetti weñ bu ñu taxawee ci weenu jigéen ween boobu wëlli di ci naaw ñetti weñ yii di naaw sama maam nee na bu ñu taxawee ci weenu jigéen ween boobu wëlli di ci naaw ñun nag léegi Sénégal jigéen ñi seen sañse yére bi lu mu rafet rafet tant que seeni ween dimbul jàpp nañ ne sañse wuñ waaw bu dee ay xartum ak yooyu moom dinañ ko ñaw bu baax mhm. xartum bi muur lépp bu dee ay fas ak ay àndaangoog Lagos dinañ ko def noonu waaye bu dee jasineer la wala mbase wala di si xew tànk defuñu ko solee ko loo xam ne seen cër yëpp day génn jàppuñ ne sañ sañ bañ nañ ko ba boo ko ñëwee ñëw bu yiw dañ lay jàppee benn benn benn seer benn ngaaka lañ lay jàppee ñaareelu dëkkandoo bi mooy ki nga xam ne mooy malaaka yi la yàlla boo leen di dëkk ak ñoom te doo leen gis daa am li war sa diggante ak ñoom da leen bàyyi xel dee leen bàyyi xel ñetteel bi wax naa la neex ñee naa la xar mi nga dem jëndi yaa ko jëndi waxula jënd ma kenn ku nekk ci ñun sa doom ji nga am jigéen ñi nekk kër bàjjenu ko jigéen yi nekk jigéen yi nekk fi kenn ku nekk ci ñoom sa doom bi nga am bu jooyee xàmmee nga ndax jooy boobu kuus bu tooy la bu jooyee xàmmee nga ndax jooy boobu jooyu gëmmentu la bu jooyee xàmmee nga ndax jooy boobu jooyu ku xiif la yàlla nee na ni nga fexe ba sa doom nga xàmmee jooyu ku xiifam xàmmee jooyu bu gëmmantoo xàmmee jooyu bu bu bu bu bëggee nàpp xàmmee jooyu bu kuusam tooyee yàlla nee xar mi nga jënd yar ko ci biir kër gi nga fexe ba heure bu mbeewee mbee nga xam ndax daa xiif bu mbeewee mbeew bi na xam ndax mbeewu mar la bu mbeewee mbeew bi na xam ndax mbeewu buum biñ ko takkee buum baa koy gaañ ci tànk wala da koo xoj ci baat bàyyi ko xel ndax dëkkandoo la dëkkandoo la yaa ko jëndi ko jëndi waaye ñun suñu yoon nekku si ñun daal saaku ceeb la ñuy jënd mm-hmm. teg ci kër dinañ yeewu ndékki mm-hmm. bu bii jotee ñu añ am na nu muy demee ngoon ñu njoganal wala ñu lekkantu bu guddi jotee ñu reer waaye xar ba ñu jënd yar ko bu dul laadum suñu nekk bu dee laadum moom ko fonk ndax comme business war ak moom ko jënd wax naa la ne beneen bi mooy jinne yi ñu yàlla booleel loolu moom danga na ko saal moom day fekk ay rab ak ay jinne yi yàlla boole ñu ak ñoom ñu dëkk ak ñoom وحنا على ميوة قدم وحنا ليجنة فاجة خاي دامين سايب كجاب دامين سيسلا مليوة 1975 كون أمنا أي رب يوفي دكون نفك سيلين وعمر دكو أدنوم يرين تبين يوم ميبان لولو دوغولا بوي دوغو تي وانا بوي دوغو تي وانا ne jidal lan satan ke chamoy ne yalla yal nak ma mussal ci shaytané bu goor ak bu jigen xam nga lutax seen keur la fal ñu dekk هذا سيد كرل فلني دك واو يوم تي أي توالت لني دك يرن تيجي نت نت بويدم كرم بويدم كرم تامو يلارا أتي بويدو كوارن يا بلي دان نيربان مولار يرن تيجي كون بويدو كتشي وانك نيربان تيمن يوي أقرب يوي نو دك لار لا بويدو كتشي وانك جيدا لا ستان كتشي موي تانا وقنا يالا يالا نعم مسلتي شيطاني بقول أك شيطاني بتجي bo duggé nek ak ñoom dira li ngay sangu wala dira ngay def sa aajo duñu mën ci yow dara waye ñun suñu yoon nek si ubbi duus bi rek dugg waaw ubbi duus bi rek dugg waaw ñu solo la kon daam no wara a ak ñoom ba ci boy tour lu tang ba ci boy tour lu tang dañ leena wara war dur ko duur waaw waaye tàngal sa ndox rek ba ndox mi tàng nga jëfandikoo ci liñ ciy jëfandikoo li des nga génn yàlla boo dëkk ci côté Sélé ba yoon génn rek jël ndox mu tàng mu ne tuur waaw nga sotti ko ci kaw jinne ci kaw doomu jinne boolew ci coow mu bàyyi ba nga dugg ci oto mu féel ko wala mu dugg sa doom wala ay mbokkam def noonu nga am doom bi baax mu rafet lool ñëpp bëgg ko waaye ku ñëw wax ay waxu jabar rek daal di daw wala góor ku ko takk rek daal di faatu wala ku ko takk dootoo am dara yaa tooñ ay mbokkam ay mbokkam jub ci yow kon daa am noo war a dëkkee ak alaaji beneen dëkkandoo mooy ki nga ne nag da ngaa moom muy doomu aadama ngay doomu aadama muy jullit waaw kooku daa am lu war seen diggante xam nga bi ci jiitu raddu salaam xam nga bi ci topp ayaadatul xam nga bi ci topp tasmiyatul aatishi xam nga bi ci topp ijaabata daawati xam nga bi ci topp tibaaul janaisi dëkkandoo bi nga dëkkal ak moom te muy jullit ngay jullit yii ma wax moo war sa diggante ak moom mooy bu la rombee nuyu la nga fay ko bu la rombee nuyu la nga fay ko comme bu la rombee nuyu la kon da ngaa da a nuyoo boo ko rombee da ngaa a nuyu waaye maal asaf alaaji Birame Niang Sénégal nuyootuñu déedéet nuyootuñu moo tax jàmm duñ ko gaaw a am nuyoo yàlla nee na booy nuyu nit ki da nga naan yàlla na am jàmm mooy asalaamu aleykum asalaamu aleykum mooy yàlla na nga am jàmm ñun nag bu ñuy nuyoo xam lu ñuy wax yàlla boo am jàmm dañu naan asalaamaaleykum moy yàlla bo am jàmm momit mu am fulu ju tolle ne la malikum salam yow yàlla bo am jàmm ñun heure bu ñu xey rek yàlla bo am jàmm yàlla bo am jàmm bàyyi lool lañuy waxante maire yi noonu ñëpp yàlla bo am jàmm yàlla bo am jàmm asalaamaaleykum moy yàlla bo am jàmm ki ne la malikum salam yow yàlla bo am jàmm xam nga wax asalaamu aleykum mu ngi lay génn mu alaykum ma amuti ci asalaamaaleykum amu ci asalaamu عليكم جايبا السلام عليكم وعلي نيوتو باي بو دمي جاكاني برام جاكاني ان الله تبارك الله تبارك الله ان الله ان الله ان الله دو عرب الحمد لله مو عرب تبارك الله يا ميري بو دمي تي سن نوتي ياك لوي سن نوتي ياك سان دي دمرا ياك ميل دي نجي ها جوبو جوبا فال فال نجي يارم فال دي نجورا دي نجورا سي مالك سي مالك سي سيك سيك يوي اي سانتو دو نيوتو buraya boy jaaf waaye lu mu demee nice bégee gëj a gisee cool fine du nuyoo yàlla ne bu ngeen bëggee nuyoo dinañ wax asalaamu aleykum ki lay tontu wax la wa aleykum salaam kon yow sa dëkkandoo bi nga xam ne jullit la ngay jullit yonent bi nee na bu la nuyoo fay ko mooy rabbu salaam xam nga ba ci topp ayaadatul maridi seeti ko feebar biraama ñaa bu yëgee oustaz Mamour daa feebar daa war a taal otoom ñëw seet si ma bu ko deful am bàkkaar yonent bi mooy wax de su ma yëgee sekk daa feebar damaa war a taal sama oto seeti ko su ma ko deful am bàkkaar ayaadatul mari bi seeti ko feebar nit bu nekkee sa dëkkandoo même bu dul jullit da ngeen xamante bu feebaree dañ koo war a seeti boo ko yëgee yonent bi alayhi salaatu wasalaam këram kër gi sa soon ci moom dëkkandoo bi mu dendal mu sës si moom ab yahud la nekkul jullit تمير بيدو خون سين دينغت دا جات كوم ميرو كرو جخاي باي ناي واجي اور بو فوبيري با نوبي وا كرم بو فوبيري با نوبي داي جيل فوبيري بي رخاسيب بي جيل كو كوب كو كول يونس تبي عليه الصلاه والسلام الاج يوسف واجي كرم بو بالي با باري مو جيل مالي مي كوب كو كول يونس تبي عليه الصلاه والسلام وا كرم بو فوتي مو جيل فوتي مي كوب كو كول يونس تبي يونس تبي توك لندي ماردي ميكردي غيسول مالي غيسول فوتي غيسول ندوخ رخاسيب yonent bi laaj ne waa affaire bi lu xew ñu ne ko waa ji daa feebar ñun nag bu doon ñun la tànn beer la ñuy mayee ndax kontaan bu doon ñu la dañ naan ñaw ñaw man sama ndey daal liggéey ku ma yéene lu bon yaa koy am ñaw yàlla na dee gisagul dara sax waaye yonent bi deful noonu xam nga nu mu def marché la dem Moodu waa ji marché la dem bi mu demee marché xoolal jënd ay fourmi boole ci tàndal moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu ko jëndee ba pare ñun bu doon xam nga nu ñu koy dañ koy def ci mbuus mu transparent foo toll gis ko Moodu ba ci ñun pañe ndogo yi ñuy maye pañe ndogo yi ñuy maye Moodu boo tollee fële boo tollee fële seen pañe bi waaw gis meew mi gis tàndarma ji gis mayonnaise bi suukar si lépp nga gis ndax dañoo dañ cee bëgg a wane wu ngistal lañ ci bëgg moo tax Birama ma ne ko li mu xaalis bi may jox bu ma ko joxee ci tànn waaw léegi loolu laa ko ma jox ci tànt bàyyi rek bu ñu génnee nga def ak man waaw waaw sama wax yi nag nga waaw dama ko ne dama ko joxe kii dama ko ne dama ko joxe kii ñoom wut ko war a bëri ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi sallallahu dem marché xoolal jënd ay fur xam nga kan lay seeti ki koy këpp mbalit bis bu yàlla sàkk xam nga kan lay seeti ki koy këpp fóotit bis bu yàlla sàkk xam nga kan lay seet ku koy këpp raxasit bis bu yàlla sàkk yonent bi bi mu ko jëndee ba pare jamono jooju mbuus amul xoolal daa jël morceau bu fet dugal ci fur yi jël morceau bu ko jef ko ci boole ko morceau bu ñuul moo ko ñëpp sutura téye ko dugal ko ci suuf manto ñëw kër yahud bi daal di fëgg bi mu fëggee xale bi ubbi xool muy Muhammad xale bi da koo tiibu ne ko loo fi def mu ne papa laay seet xale bi ne ko sama papa ngële toog daal di agsi ci papa ji nuyu ko nuyu ko ziyaara ko laaj ko yaramam ne ko yàlla yàlla may la wér waa ne ko bu ma yàlla mooy mayee wér muy sa musiba gestul nga xool yeneen ci xool ko te ndey jooram ne ko gis nga paanu mbalit bee paanu fóotit bee paanu raxasit bee ñàkk kattan bu ma ko yëkkatee pour sotti ko sa biir kër ñàkk katt kattan googu laa amul waaye su ma wéroon tay tay mën a jàpp paan bi dinaa jàpp paan bi këpp ko sa biir kër sotti ko fa yeneen bi ne ko amul benn problème yàlla yàlla may la wér yàlla may la kàttan te yàlla may ma xulu muñ ba loo sotti sama kaw sama kër yàlla may ma xulu muñ du ma ko raxasee dem tuuri ca mbalit yéen tamit ñu génn xool ko ak nam mel nee naa la moo ëpp ko doole moo ñëpp fit moo bu ko neexoon muy defante ak waa ji yow waa ji xool yonent bi xam ne kii moo ëpp ñaari yoon xam ne kii lu mu bëgg ci man mën na ko am bu ko neexoon fii ma tëdd nii mu xoj ma fi waaye mu baaw kii daal la ñuy wax ci moom dëgg la waa ji ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dugg ci lislaam dugg ci lislaam maa ngi ñëw di ngeen way di ngeen way de maa ngi ñëw di ngeen way di ngeen way waaw di ngeen di ngeen way maa ngi ñëw di ngeen way di ngeen way di ngeen way daawul fayam toog kon sa dëkkandoo bi ngeen dëkkal da ngeen bokk diine da ngeen bokk diine kooku dalaa war ci moom bu feebaree nga seeti waaye awma temps c'est mbaa xam nga ne ko amul jot amul ñëpp am jot xam nga lu am mhm. ku bañ a am sa jot c'est mhm. mhm. amul sa jot moo am na koo xam ne mu amul sa jot waaye bu mu ne jot de nga ne awma jotu sekk waaye awma jot bu nga ko wax ñëpp am jot bu dee kuy liggéeyi toowu taar wàcc liggéey 24 heures sur 24 amul amul. dina dinaa koy faral di wax ne kenn taxawalul. kenn wallaahi azim koo gis rek am na fu mu jëm kon dëkkandoo bi la bi la dëkkal bu feebaree da ngaa war nga seeti ko bokk na ci bokk na ci c'est que ki nga xam ne da ngaa dëkk ak moom yéen bi nee na bu ci soolee bu dee alhamdulilah nee ko yarhamkallah bu décimalee bu santee yàlla nee ko yarhamukallah ñu njëkkante ak taal c'est que bokk na ci bokk na ci ak yi am sa diggante dëkkandoo boobu mooy bu génnee àddina gu guure ko bàyyi jërëjëf jërëjëf Seck jërëjëf Seck jërëjëf Seck jërëjëf waaw jërëjëf Seck jërëjëf Seck fil bi xool fil bi bu faatulee génnee àddina gu guure ko fekk dëkkandoo bi nga dëkkal te muy jullit loolu moo la wax ci moom dëkkandoo bi nga jullit te nga dëkk ak moom it am na la wax ci moom xam nga mooy lan mooy rafetal ñun jullit ñi nag ñun jullit ñi attention ñun jullit ñi xoolal xam nga ne ñoo fépp chrétien ñaata pour cent musulman la 90 pour cent 95 pour cent musulman moo ne xoolal fu mu toll nii nga xam ne ngalla xew la man démb sama kër dama faa dugg yaakaar ne sama waa kër ay njaagu lañ sama frigo néegal frigo ëtt baat yëpp ñu duy ci ay ngalax ba mu fees bi ma lekkee ba suur ma ne leen waaye yéen mbaa yéen a ngi fexe ba ay koriteeg tabaski bu jotee kër chrétien yi dina mel nii ci ndawam loolu yaa ngi fayu Cheikh yaa ngi fayu yaa ngi fayu yaa ngi fayu bu sa bopp di métti neel sama bopp a ngi métti waaye suñu bopp a ngi métti wóorul seex am na ñoo xam ne xaru tabaski bu ñu ko rendee li ci lislaam wax ne lekkal lenn li saraxe lenn li denc lenn li am na ci ñoo xam ne saraxe du leen ci fekk te moo ne mën nañ cee génnee tànku njëkke daa araam daa xaraam amu ci de maa la ko wax faaru bàjjan amu ci yeelu maam amu ci bopp nijaay amu ci ah dënnu dënnu tànta amu ci dara amu ci daa araam daaro maa la ko wax xam nga lu ci islam wax lekkal lenn li dencal lenn li saraxeel lenn li la ci wax lekkal dencal saraxeel ñun nag Sénégal ñun ñu génnee fi aada ba ku la may njëkke tey jii boo ko joxutul tànk mu mere la fam la seede yàlla ku la may njëkke tey boo ko joxutul tànk mu mere la ci loo xam ne yàlla moo ko moom la yanaalullaa luxumaha ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يلا نير خرمي لمو ري ري ري ري سخلو ما بيجن بي سخلو ما ياقو بي دار بي سما يون نيكو تي خما لا لا جي سخلو موي راغال يالا جي نين تي ام موي مان ما لين ديغال دي لين ما خار رند نين سرخ لين سرخ نين لك لين لك لين denc لين denc ngeen لولو ما leen ci sant ngeen def ko man yàlla loolu moo ma ci ñor kon yooyu ñu bàyyi ko xel ñoo ngi nuyu bu baax ajara di ko ziyaara di ñaan yàlla mu defal ko jàmm waaw dimanche bii moo nekkoon conférence am bii passé ñoo ngi ñaan yàlla mu dëgëral ko yow oustaz yaa ngi dem mais loolu nga war a jox sekk jox ko waaw. jox na ma yàgg na jox na ma. topp ko mu jox man jox ko ma topp. dama dama ndigal dama dama dama dama dama dama ndigal dama dama dama dama dama dama sekk dama dama mu joxaat la dama eh oustaz bu ñu lay topp cooto jox dama dama. ñoo ngi nuyu bu baax soxna ah, maam soxna maam kan ñu ziyaara ko baax seen nañ ko ci jotaay bi ñaan yàlla mu dëgëral ko yàlla defal ko jàmm muy soxna si yàlla baaxam waaye ñoo ngi nuyu bu baax ajaratu màgget ñu ziyaara ko ñaan yàlla mu taxawu ko biir ak biti yàlla defal ko jàmm biir ak biti ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu dee ci cadre ñu dellu si waat tuuti ci li ñu Issa Kabara wax loo jigéen jigéen jigéen ni mu war a nekkee ci kër mooy sakina dal jigéen ni mu war a nekkee ci kër mooy sakina dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wax mujj jamono yàqu gi muy nar a yàqu li ko indi xam nga lan la wax daal ne laa xayaa afi nisaihim mujj jamono li nar a yàq li nar a yàq jamono li ko nar yàq mooy jigéen ñi dootuñu am kersa barki Demba Ndiaye Moodu fan yi ku yàlla dogal ngay dugg TikTok waaw hmm? yonent bi wax. Eh, yonent bi yonent bi nee na yonent bi nee na loo xasee jullit balaa ngaa faatu yàlla na toll ko bari na yaay joo xam ne xoolal xale bu jigéen day nekk ci koñ bi tudd faatu. yiw lool nekk ibaadu di muuru. sell di jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo jàng jàpp ñàmburam yàlla bind destin ci moom loolu loolu war koo dal loolu war koo dal loolu dal ko yaay pendo bi nekk ci kon bi ak yaay aji tàmbalee wokkonte waaye faatu faatu doomu la koy saar bi gis nga faatu faatu yiw yiw loom bu métti gi yëpp muuroo góor ndeke muuru seytaane la faatu ndeke heure bu ñu rombee di muuru ma dem di joxe boppam ci àll ba ba fu mu toll ma ngi nii tooñ nañ ko grand place boo ngeen di waxtaane kër njaboot balaa kër njaboot waxtaan bi di jeex nga tudd fa ëmb faatu la tàmbalee nàngam kër koo dugg boo fa duggee ak lu la fa mën a dal balaa nga faa jóge di nga fa wax ëmb faatu gi yàlla ne la yow de mun dootoo ëmb ndax meer nga mun a pose nga waaye sa doom waaw yàlla ne la yow dootoo ëmb ndax meer nga mun a pose nga te man yàlla maa ne woon loo xasee nit balaa ngaa génn àdduna ma teg la ko te yow mun a pose nga yàlla jël ko teg ko sa doom oustaz yàlla buñu ca boole est-ce que xam na baay bi sax wallaahi laazim loolu lañ cay boole sekk nee na yàlla buñ ca boole est ce que xam na bàyyi ca ngir tilimal deru faatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu dooree taxawal diine xam nga lan la wax lu waay xam ci sekk ci lu baax wax leen ma ko lu waay xam ci lu bon soxlawu ma ko lu nit xam ci nit lu baax wax ma bëgg naa waaye sëriñ yonent bi nee lu nit xam ci lu bon nit ki téel soxlawu ma ñun nag léegi kaa yu baax yi yitteeluñu kaa yu bon yi ñu gën a yitteel ba ci sax groupe kër njaboot gi ki nga xamne moy dugg di ëpp lu muy lijjanti ay information di kaf ak di nangam ak nangam ñëpp mom lañu gëna xari tool bo demé demee numéro ñepp ñëpp sëré nañ ko. li leen jaaxal ñu woo waaw li leen jaaxal ñu woo ko ñu xam ka bu baax te moo ne sekk ñiy baax ñi ngi baax. ñiy baax ñi ngi baax. fi ñu ne ay nitu voleur ñofi fi de tant bi ay nitu voleur képp ñofi tok toog légui yu baax yoy du ñu ko waxante suma juumon tay ba wax nako sudul noonu xolal moom. yi baax yi ma fi waxtaan yëpp kenn ko dindi kenn ko jël loolu la ñuy dagg dafa jël ko tasaare ko ci internet fan la ñuy jëm alaaji nga alaaji nga njaay day nekk ci koñ bi di def lu baax di def lu baax ñëpp xam ko muy def lu baax benn bis muy wax ak man xaw maa dépassé te daa juum daa juum sax boo demee daa juum xaw a wax rek ñooñu jël affaire boobu dagg ko jël ko tasaare ko ci àddina ya baax yam doon def yëpp ñun itam ñu bëgg koo fàtte kon kon jigéen bu nekkee ci kër ngir doomam ji muy indi kër njaboot doom ja bu màggee mel na ñoom bàyyi am ni ñuy tudd wala mel na ñoom gan njaay mel na ñoom sekk nekk nit ku baax ngir loolu mën a am mooy yow mii noppal sa doom fexeel ba bul yéene kenn lu bon yéene ñëpp jàmm yàlla ne la loolu nga yéene duñ ko am waaye yow na di nga ñaari kilifa dañ doon génn di tukki di voyage yi ci benn gaal dem ba ci géej gi gaal gi ne tàcc xar bi gaal gi xaree benn kilifa gi diig commencé diig keneen ki di fee ki commencé diig daal na yàlla maa kii de bu dee am na kenn ku ci war a lap yàlla na nekk man te moom mu sofe rek yàlla génnee ko ci kaw ndox mi waaw rek yàlla génnee ko ci kaw ndox mi waa ji ko mais yow da ngaa mën a fee ci saa si mu ne ko yéene yéene kon faaw ñuy yéenante jàmm te bëggante te yàlla tax faaw ñuy yéenante jàmm te bëggante te yàlla tax c'est bari na tey bari na tay bari na tey koo xamante ne nii am na ci yow lu ko metti am na ci yow li ko metti c'est que defoo ko waxoo ko yëgoo ko tinoo ko nit rek moo fi jaar c'est mooy toog tagg Modou Kayre dangaa a way yaa dàq way sama waykat nga kooku génn dem ci Seydou wala dem ci Tafa Kayre wala dem ci euh, euh, euh, Baye Sall wala dem ci Moussa Kalamu ne ko Seck léegi Modou Kayre diw bër bi de moom daal la wax Modou Kayre jaxaay benn jànkat fi am muy Modou Kayre waxul loolu bu nettali mënta ñàkk nettalil ko li mu def kon faaw ñu bëggante te yàlla tax yow mi bëgg am doom bëgg sa doom nekk sang fexeel ba doomu jàmbur boo gis sang ko te ko sang soxna jaariyatullaahi mariama buso wax naa la ko keneen ci conférence binta an faaw am seexal xadim faaw mu am ko c'est que mhm. mariama Mhm. bi mu ñëwee kër maam Mor Anta Sali mhm. suñuy nopp bi ñu ko muuree mu ñëw kër maam Mor bi mu duggee ci néeg bi daa xool si di yam ci asamaan si te mu ngi ci biir néeg bi de mhm. néeg bi amul toiture néeg bi kenn kuulewu ko amul zinc amul ardoise bi mu tiinee tiinee daa yem ci biddeewu asamaan si te mu ngi doon sëy ci biir néeg bi mu ngi doon agsi mu teg tànkam teg ko ci suuf way jur Seexul Xadiim xool néeg bi amul lal du matelas du coiffeuse du armoire xam nga lu ma ñaari sajaada e du sajaada yi de sajaada yi deru xar la ñaari sajaada deru xar moom la fa maam moo teg benn bi mu teg ci ay téeréem benn bi ci lay jaamu yàlla bu wée bu sonnee wéeru tëdd ci way jur Seexul Xadiim néeg bu mel noonu la wàcc daal di dugg toog ca sajaada bi ñi mu àndaloon daal di génn ndax boobu topp amul ñi mu àndaloon daal di génn ñu yëg maam moo yëkkati kaamil alquran jox ko مريم ابو سو اوبي كامل بي يم تي سوره الاحزاب دالي خول سار بي تور خيو ما مور ايه بودي نيك بي ليغا دوجو نيك بي دي نيك بي امول تواتير nga xamne buy taw da ngay toy motax ngay joy ñi la yobbu won ñi ngi ne ag guñu ma jël la legi dab la and ak ñom jox la ko ما ذلك الله خير ما لك جوي ما مر bu fekkee ne bi li mu amul ay lal ak yooyu la yooyu tax man aw ma dara yàlla laa am bu dee loolu la ma ma ma ànd ak yow léegi ñu dem tabi ñi la indi woon ñu delloo la si kër mu ne ko jooyu ma lool mu ne ko looy jooy mu ne ko ñaari mbir daal ma tax a jooy damaa xam ne ñetti yoon lañ ma war a muur muur nañ ma ñaari benn moo ma dese muur nañ ma bi ma nekkee liir leewu ma jox ma imam mu tudd ma muuraat nañ ma tey dugal ma sama biir néeg buñ ma muuraatee dañ may dugal ci bàmmeel jox ma yàlla xoolal yéene bi mu am ñun nag dañuy ñun nag dañuy am suñu doom di ko yab pour mu sëy ñun ñi koy yab ñooy tas sëy dañuy am suñu doom di ko yab pour mu sëy bàjjan bi nga wóolu bàjjan lu xale bi nga ko tuddee nga xam da nga ko wóolu bàjjan bi ñëw war a yab sa doom war a sekk yéen góor ñi seeni doom buñ matee sëy ngañ góor jigéen ñi nañ noppi ñun góor ñi nañ leen yabal suñu bopp Moodu. yow amoo sax soxna bay am amoo tam Moodu ah góor ñi nañ góor ñi dañuy yab ne monsieur le maire góor ñi dañuy yab dañuy yab soxna yi de xam nga lu tax waaw léegi sa doom di ngay yab muy sëy nga naan ko boo demee luñ la tere bàyyi ko luñ la digal def ko ya tas sëyam sa maam Cheikh El Hadj Malick bi muy yëpp doomam soxna Faat si muy taaw di magu Serigne Babacar si mu koy yàpp ne ko boo demee nooy sëyee mu ne ko man daal su ma demee liñ ma digal dinaa ko def liñ ma tere dinaa ko bàyyi alaaji Malick ne ko toogal mën a góor sëy toogal yow mën a góor sëy boo demee tas kër jàmbur jox indil ma gàcce toogal ñu toogaat juróom benn weer am ku ñëwaat di ko bëgg jërëjëf am ku ñëwaat di ko bëgg noo sekk parce que waxtaan yi boo ko waxtaan kenn du la jox xaalis waxtaan yi jox xaalis xam naa ko xam naa ko defoon naa ko yii moom kenn du joxe xaalis bu ko def su ma demoon suñu Babacar naaw léegi biñ taxaw jot mag def jàng ni yeneen ak yeneen waaye yii nag mooy joxe yàlla nag. waaw waaye yii mooy joxe yàlla waaye yii yii mooy joxe yàlla waaye bu joxe xaalis nag gis nga yàlla xaalis bu jaaree ne mu jaar yii mooy joxe yàlla yii may wax ndax yàlla rek a tax waxuma ngir bëgg a dëggal kenn pour am lu ma jox. Mm. damay wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax buñ la koy booy wax duñ ko jox dañuy toog rek. Mm-hmm. jógee su ma jaawantee nii léegi ñu taxaw. seccu ma soxna Mariama Bousso ne ko ñetteelu muur bi buñ ma ko muuree dañ maa jébbal sama borom dugal ma ci bàmmeel mu ne ko waa ñaareel bi nga ne moo waral jooy lu tax mu ne ko bi ma ubbee alquran damaa yem ci suratu ahzab yem ci benn aaya yàlla ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyin looloo ma jooyloo ndax yàlla nee na yonent dootul am ci àddina yonent jeex na واي واي اي يالله لا جورال في يونت درجف سخنا مريم بو سو مان دينا لا جورال في يونت واي يعني تدوت الأرض ويدنا لسيل سيب رخت دنا قول قول جامو يلا جامو لا بدنا جور دوم جو خم لك تدوت يرن تبي تدوت دوم جو جو ماي برام جماعة خالد الله يا ريا بلوك مانو لا من لو لو دك تو هكيم كمار ما دكان بيماي مايا مانو لا من لو لو دك تو هكيم كمار Diba paraan tega toofikan nagumar baaku gandu bay bagawal tega toofikan. Jahani dalur tega toofikan nagumar baaku gandu bay bagawal tega toofikan nagumar. warkay soxna jaara mës naa jël aw semin ci xardaalam ndeke foofa day bëgg a tàngal dafay dëggal sëriñam alaaji Moodu aw semin ci xardaalam Moodu kon yow mii jigéen yow mii jigéen leçon baa ngi loolu yow mii mii nekk ci sa biir kër yow yaay am ne bàyyi ngi ne sekk góor góor même buy moy yàlla dinaan sàngara mën naa am doom ju doom ju baax jigéen da koy indi ci kër jigéen xam nga ni mu koy indee ci kër mooy fexe ba sa borom kër nga def ko sànq moo euh, sekk bari na tey ku yab jëkkëram xam nga tax mu yab ko wërsëg baa néew wallahi lasim sekk bari na tey ku yab jëkkëram xam nga tax mu yab ko wërsëgu jëkkër jaa néew te moo ne ay bu xëyee gàddu bagage am dem wuti yàllaay maye biraa ma ñaaw ëppale gi ma ëppale nii daf maa ko jox ëpp ma jox yàllaay maye Ngagne Ndiaye li ma ëpp lii nii ëpp ma jom. waaye yàlla mooy maye yàlla mooy maye léegi yow xeeb nga sa jëkkër xam nga da nga xeeb ko mooy dem nga dugg néegu bàyyi am gis mu def fa lal boo xam ne ak armoire coiffeuse bu jar deux millions mhm. yow sa jëkkër li tekk lekk néegam yëpp buñ ko xayma woon jaay ko matul téeméeri junni rek nga xeeb sëñ buñ ko xeeb yàllaay maye wallaay boo demee li sëñ bi boo demee li sa jëkkër di def bàyyi am daju ko yàlla mooy maye. dëgg la waaye déedéet dañu lay xeer nga nekkal sa jëkkër defoo ko nawle defoo ko sànq boo koy nuyu taxaw booy nuyu bàyyi amul kamanu suuf waaw sama xarit la ma jël exemple ci moom. dama mhm. defoon keneen waaw moom lu ma ko wax mën naa ko wax. moo koy nañ seetaan affaire bi booy nuyu sa borom kër taxaw ne jom. sëriñ da nga yaakaar jébbalu ci moom boo koy nuyu raam waxuma la bu raam de waaye même boo ko raamala raamalal sëñ bi ndax yeneen ci bi nee na yeneen ci bi nee na yeneen ci bi nee na su ma doon digal nit ngir muy sujjootal kenn dinaa dugal digal jëkkër jigéen pour muy sujjootal jëkkëram waaye nga jël sëñ bi rek bëgg koo def moo am ndax la wërsëg gi ko yàlla jox néew na sëñ Hadji Malick daa toog Tiwaawan di jàngale toog kër kër gi ca la daara ji nekkoon Modou Kaay venez ici waaw xoolal toog di jàngale daara jaa ngi fees del taalibe yaa ngi fees del ñëpp ko wër daara jaa ngi fees del xoolal Seydi Hadji Malick di jàngale daara jaa ngi fees del taalibe yaa ngi ko wër taalibe yaa ngi ko wër daara di fees del del del del del del bu fees del soxnaam di ko attaaya attaaya ba pare waaye ñamul attaaya ji ndax neena na Hadji Malick warul joxe dépasse am ci njëkk ñam ñamul ataaya ci heure bu ataaya soxna su ñam du ñam ataaya ci mooy way jur Seydi Hadji Abdou Aziz Dabakh du ñam ataaya ci ndax nee na nangu sama borom kër joxe dépasse am ci njëkk ñam mu ataaya pare fàttee suukar ataaya ci ñii ne déedéet jaawale suukar see xorom si ñii ne déedéet daa fàttee suukar ci waaye lu ci mën am ataaya ji amul suukar xolal mu xelal Seydi Hadji Malick waaye Maodo cig mbaaxam ngir nga xam ne góor da wara a am yërmande ci soxnaam cig mbaaxam Alaaji Malick te ataaya ji ñam nako ko xam na ne amul sukkar waaye Maodo naan ko bam jeex ne tabaarakallaahu neex xolal soxna si xellil talibe yi talibe yi naan comme seen serigne kaasul du ñemee kaas talibe yi naan ba àggal xolal soxna ci daal di xelli daal di ñam rek daal di yàq dañ na ay way man tas naa dëkk bi كير جو كير سي الحاج مالك بايال بو ياتلو وون وان با نيك تا غينا الحاج مالك توك طالب ياغي فيس ديل سخنا سي اي يري ويخ لا سولون خم نو ديف سي ساسي سي وان با لو سوكي تامبليرا تامبليرا روم طالب يي دي رام روم طالب يي دي رام با في الحاج مالك توك مو جيل اي تانكام تك كو تي لوبو الحاج مالك سيغ تامبلي جوي اي واي مودو بال دو ياب لا دي باني رك نجوخي دي باس مو كورنا لول رك تخ waaye Maodo baal ma Alaaji Maalik ne ko ay waay man man man man yëgu ma ne sax yëf yi am na suukar wala amul suukar baal naa leen ci xool bu sedd buy Seydi Alaaji Maalik ne taalibe yi xool leen ko kii di ma raamal nii def ma ko te mënoon leen rus rusul dina am doom joo xam ne ñëpp dinañ ko raamal te même bu duggee bàmmeel bu réew mi yëngoo mu réglé problème bi Sénégal heure bu yëngoo ñu teg kasetu Seydi Alaaji Abdou Aziz Dabakh mu réglé problème bi te mën ci biir bàmmeel loolu day baayam moo tax yàlla dama guddee bay wala ku sopp na baax maa ngi. waaw danga xasida danga xasida. sunu góor ga baax. sufiyatu ñaŋ mooy yee ku sopp Seydina Muhammad. kon yow mi bokk kër njaboot leçon baa ngi noonu doom ju baax boo ko bëggee jëlal sa borom nga def ko sànq. ak lu mu néew néew néew néew néew le ko nga def ko sang ak li mu am li mu tuuti tuuti jël ko nga def ko sang yaa bi ma qasama allahu laka takun arda naas isaa jéego yi isaa dama lay ñaanal jéego yi nga dox jëm ci man yàlla na ko dox biir néew yor ko ci dara jël isaa isaa ni dina isaa taxawal nag taxawal sama xol bi daa sedd ci xam nga li ma la xam naa ko sama xol daa sedd ci yow jéego yi yàlla nañ ko dox biir ñëw yor ko ci dara jëg ñun ci Issa da nga war a am daa am ñu war a am ku mën a sonn ci nit la Issa Kamara ku mën a sonn ci nit la yàlla yàlla taxaw na biir yàlla taxaw na biir ci dara Oustaz Issa Kaay lii mu wax man gëm naa ni dëgg la ci moom Oustaz li may manqué say conférence bari na waaye li may. ñi fi é ñëpp doyen Diop su ma limee su ma limee rek juum mhm. wala ma fàtte mhm. mais ñi fi nekk yëpp mhm. binta an sama jigéen ma koy siyaar bu baax a baax moom ak mère Kine Baxa Yoxo Yoxo nag à chaque fois dama koy ak moom du ay xarit sama yaay la ndax man ak doomam ñoo doon ànd ak ñoom papa Ndiaye ay mën yaay bu Pastef bi ñu nekk tout le ñu bisee fii doomam dem jàngale ji ci àll kër ga amul góor comme yàlla mooy boole ay nit rek ma takk ko mhm. donc looloo tax sama digganteeg moom mais depuis bi ñu nekk xale tout tànk moo ñu yar ñetti baax kon kooku sama yaay la donc di jaajëfal ñëpp waaw kër jaboot dafa am benn femme bu tudd Claudia mhm. euh, ginnaaw loolu avant loolu maa ngi gërëm Abdoulaye Wane parce que ñu bëri dañu foog ne kër jaboot man may président bi mhm. kër jaboot Abdoulaye Wane mooy président bi mooy waajale na le mooy président bi donc association la boo xam ne nañ ko yàgg association bi dañuy def un mois un quartier def ci quartier yi. Mm-hmm. di leen may ñuy seen bët mm-hmm. di leen jox ay verre. Mm-hmm. di xool xale yi. donc di def ci ay festival. di def malnutrition. Euh, moo tax gëm-gëm rek a am solo. biñ koy commencé amuñu woon siège ci koñ yi la ñuy dem. buñ demee ci koñ yi xool benn taatu garab. lonk fa suñu peese kaayu xale bi. di jël xale yi di leen peese. suñ paree laay woon jël rapport yi yóbbu CNDN CNDN mooy kuréel bi nga xam ne moo yore mooy surveiller lépp lu jëm ci xale. Mm-hmm. oustaz mbaa yëg nga ni tubaab mënut a jógee ci Europe ñëw na defal leen di xale Sénégal. mënul mm-hmm. ne il faut mu am kuréel boo xam ne la nga bëgg a développé foofu nga ko war a jaarale ba ñëw ñu xool ne adapté na ak suñu waa dëkk wala yoon nangu na ko ñu dégg laa bàyyi boole laaj nit ku ñëw nga continuer def CNDN boobu ñu doon yóbbu suñuy rapport bu ñu defee ci code yi ñoo dem ba benn tubaab bu tudd Claudia doon liggéey banque mondiale retraité ne moom nag du toog comme banque mondiale tout tànk la ko yoroon day ubbi ONG boppam. genn siwaat Sénégal bi nga xam ne yàgg na di fi ñëw di surveiller na leen dama def bëgg ONG état bi ne ko demal CNDN CNDN ne ko demal jaxaay am na ñu fa nekk di yëngu ci wàllu xale malnutrition loolu moo indi suñu soo xoolee. kër jaboot tawfeex tur bi ñoo ko ñoo ko jëlee fii jaxaay tey soo xoolee ci àdduna bi yëpp tawfeex kër jaboot la ñuy wax donc biñ ñëwee ñu waxtaan ñu ne dañu war a am siège dañu war a am li ñuy def nag ñu du xeex li bon dañ koy wax jigéen ñi du xeex li bon li ñuy def mooy gàttalu xii bon du ñu toog ba xale bi xii bon nga dégg a jóg naan dama koy defal li dama leen. sama doom xii bon da fekk dafa xamul ne xiiboon doo xaar ba mu dal xale te dafa am yu bëri yoo xam ne oustaz yaay yi buñ ko xamoon dinañ gën a bàyyi xel ci seen doom li may wax maa bëggoon madame Diouf en tant que sage-femme ce que ñaar xam nga ne oustaz ñaari xale dañuy rawante ci jour accouchement seen seen yaay ànd naag xale madame Diouf bi fi nekkoon ñu romb benn xale yaa ñu ne ko kii de doxagul ba léegi waxagul te moroom yëpp dox nañ wax nañ mu ne bi ñu demee mu ne ma kii normal mu nekk yi mu am retard parce que matu yaay ja dafa métti woon te yàgg kon ku la gën a gaaw mat moo lay doomam si lay gën a am mentalité pour mën a teel a dox teel a wax ku matu bi gën a yàgg kooku xale bi noo non seulement bëñi pour mu génn moroom yi su ñu amee ñeent moom ñaar lay am wala benn wax bi mën na yéex dox bi mën na yéex kon loolu jigéen bu nekk war nga ko xam pour am lu ñuy wax plan d'accouchement nga xam ne boo ca tolloo war a dem dispensaire ba doo fa nekk du yàgg parce que xam nga am na jigéen ñi xamuñ lan mooy ndoppanti xamuñ lan mooy xamuñu dara kon man na balaa ngaa dem di accoucher mm-hmm. nga am plan d' accouchement boo xam ne moo lay permettre tey boo demee mm-hmm. sa doom jooju nga ban koo lor ci dara donc loolu mooy kër jaboot ñuy xeex ci malnutrition mm-hmm. di xeex euh, ci ci ci ci mettre en valeur suñuy produit mooy céréales locales Oustaz ñoo ngi def fii ay araw ñu ngi def fii ay ay ay cere boobu cere bon bëri na ay affaires yu ñu fiy def di fi def ay saabu di ñaan yàlla rek États-Unis boobu ngay wax monsieur le maire mi moom ci doon dox ay jéego pour ñu dem ci benn espoir bu fi amoon mais malheureusement xam naa ne incha allah kër jaboot dinañ ko dégg fu sore sore mais loolu tamit oustaz bu amee ginnaaw yàlla jigéen ñi ñoo ko ñoo ko waral parce que nekk dafa metti oustaz nekk dafa metti ku nekk bokkuñu jikkoo mais dañuy muñalante xam nañ ne man seen seen doom la du ma jóg ci def ay njombe mais dañ may comprendre di ma baal parce que dafa am foo xam ne foofu laa gis ne Kër Jawar war na ko mën a yegg te incha allah ñoom ñii man gëm naa ne Kër Jawar dina fa yegg ba ñoom ñëpp ñu yóbbu leen màkk incha allah ci projet Kër Jawar di jaajëfal ñëpp nekk xale boo ne dafa dafa dafa dafa dafa ñëw rek ci liggéey bi parce que dem na ba benn instant man man kese mënatuma ko gérer ak yeneen Kër Jawar yi nga xam ne ñoo ngi ñëw moom dafa ñëw rek jàpp ci liggéey bi kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñoom so soxna Maguette ah yaay jaboot kee moomu njëkk a wax tontoo jaboot avant projet bi waaye moo ko avant projet bi avant kër jaboot di am su ma ko rombee rek ne ko yaay jaboot mu ne ma tontoo jaboot boobu xalaatuñu woon na sax lii dina am kon tey buñ koy def ba nga toog ak waa ñu bàyyi am bi yëpp man bàyyi am moom mënatuma ko sax bàyyi am daf ma defal teraanga yoo xam parce que nit ñi dañuy foog ne teraanga yëkkati rek jox man li may jàppee doomu aadama di ko nawee du man yàlla dafa ma dimbali damaa doylu man su ma amee cent franc ak un milliard man moom laa yemal mm-hmm. li may jàppee doomu aadama mooy mooy cër mm-hmm. ba am moo mën a jox nit cër man dafa ma teral ci jox cër mm-hmm. ndax boo demee ba toll nekk kilifa am yenn dayo yi bu la neexee nga am noo toogee mais boo ko ne Issa mu ne la sama xarit la loolu ku mu doy dara doon la doy